al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo di may émission bu mag bii di seen diine bismillahi arrahmani arrahim rawal imaamu albuxaari yu imaam ci saxiixam nettali na nana xaddatanaa yaxya bnu bukayrin yaxya doomi bukayr nettali nañu xaddathana laythu layth nettali nañu an uqaylin jëlee ci uqayl an ibni shihabin jëlee ci ibni shihab an abi ubaydin mawla abdirrahmani bni awfin jëlee ci abu ubayd mbaa yàllay sayiduna abdirrahman dami awf annahu samica aba hurayrata Eh, moom abu ubayd dégg na aba hurayrata yal na ko yàlla gërëm mook seyduna abdurahman bin awf ak saxaaba yonentu yëpp sallallahu alayhi wa sallam dégg na ko yaquulu muy nettali ne qaala rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na la an yaxtatiba di taxan axadukum kenn ci yéen xuzmatan sayu mat wow dana ko yenu ala dahrihi ci gannaawam xayrun lahu moo gën ci moom min an yasala axadan muy laaj kenn fa yuctiyahu mu di ko jox aw yamnaahu wala mu di ko ter tere kenn ci yéen dem ca àll ba dajale mat ba mu bëri mu yenu ko ci gannaawam jaay ko ngir am lu mu dunde moo gën te moo gën a muy tàllal loxoom di ñaan nit ñi moo xam may nañ ko moo xam dañ koo gàntu ndax jullit dafay diiñ te laaj dafa toroxal dafa wàcce dignité dafa tuutal dafa suufeel su métier daal la bë la yonantu bëgg a wax ne warta am kenn warta wax ne man ni ma tollu mënuma def nangam kenn tolluwul nenn xanaa nu nit di toll nekk yonant sallallahu alayhi wa sallam nekk yonantu moo gën a rëy ci ni nit di tollu te daawuda yonantu la woon dafa daa jàpp weñ yile di ci defer la mu ca mën wa alanna lahu alxadida an imal saabixat yenentu sallallahu alayhi wa sallam daf daal liggéey dafa liggéey saxaabaam yépp dañ daan liggéey alayhi salaatu wassalaam kon na xeetu yonent nekk ci ñun na eh, xam ne liggéey moo ko war ak daraja jum foog ne am na ko ak askan wum foog ne rëy na tam bokk ca hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salaatan yugniina biha salaatan yugniina biha an biha bi xalaalihi an xaraamihi wa bi fadlihi amman siwaahu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 ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa Sakho borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Muntaqa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha saako bis ba si na kañ lay doon sam yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg nañ ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne satan ay leen lay xewee kon mbokk yi lu waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag. rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island